والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيداني mbokk maa ngi di ziare ci bés bi te jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha al-Khalifatul aam bi taifatul muridiyya teg ci sunu buntu mooy Cheikh Mouhamadou Aboul Baraka di ñaan yàlla ñu yàlla yàggal te wéral leen bañ yeggali seen naar yi ñu naan ci yoonu lislaam rot na yoonu murit ñu ànd ko ñoom yooyu ñëpp maa ngi ndokkeel ci bis bi di ñaan yàlla ñu fekkee ko déwén te yàlla nangul ñu liñ ñu koy jàmm kon ni ñu ko baaxee defee rek xam ne ñi xutba yi sëñ bi moom doy na sëkk xutba suñ ko firéwoon rek mu mu doy sëkk waaye ni mu ko baax a waxee rek ñaari sëñ bi day tënk ay waxam ci moom li la lépp boo xam ni lépp day tamboo lamboo ay ay tomb yu bëree bëri boo xam ne boo jël rek dana nekk waxtaan wu yaatu bi bi ñu waxtaanee ci la bokk mais ni nga xamee rek xeexoo jamono yi nga xam ci lañ toll nii mu di xeexoo boo xam ne bii dafa dafa nekk luñ mës a gis wala ñun boog ñun suñu jamono mës koo am ñu koy doog a xam ci jamono ji ba tax dafa koy jàngat yu ci war a jàngat. jàngal yoo xam te lu jeex mukk waaye man ci tënk rek li ma ko ni ma tënkee ni ci war a jàngatee ci ci gàttal xam ne jàngat bi ñu ma def rek jàngat bi dana ko mën yóbbaale gannaaw bi ñu ñaanalee ñaan yàlla musul ñu ci musul ñu ci ñoo dal te bu ñu bu ñu dal ku ñu xam te ñu ñaan yàlla ñi mu dal ñu wér ak jàmm ci mboolem réew julli ñi ak ci ak sax ci ci di àdduna bi yëpp bi yëpp tey ñaan yàlla ñi nga xam ne yàlla dogal na ci ci bàyyi dañ ci bàyyi ko ci saw sababu mbas mi yàlla yërëm leen ni ma ko waxee rek jàngat yu yaatu ñu war a jàngate ñu koy jàngate moo di dafa mel ni dañoo jàngal ñu war a fat ñu war a tëggaat ñu war a daal farluwaat ci suñu askan farlu farlu ci ci yépp ci fànn yépp ci lépp lu koy dëgëral rek ngir askan wi mën a sax dëgër ngir mën a jaam yàlla mën a liggéey mën a jaam yàlla topp man ci sama gis-gis-gis mënuñu mënuñu jàngal xam ni xam nañ ni askan li koy li koy li ko ëmb dafa bari fan fan yi ko ëmb dafa bari kon nag bu fekk yàlla kon na fan yépp taxaw nañ ci nañ ci war taxawee bañ benn nga xam ne daal fànn bu ci nekk rek donte duñ ci mën a taxawee ni ñu koy waxee miyaa fil miyaa maanaam téeméer ci téeméer bu duñ ko duñ taxawee dañ ci war ci téeméer bu mat sëkk ci yëpp waaye ñu mën cee taxawee bokk xaaj ba wala bokk gën wala suñu xaaj ñetti xaaj ñetteelu xaaj bokk ñu taxawee ko su boobaa day tax lu mel ni su ñëwetee du mettee ni ni mettee nii ndax ci gàttal rek suñ ko xoolee ci ci ci réew yi nga xam ne ñoom àdduna rek moo leen soxal ñoom xëy na métti na ñoom waaye nag métti bi ci ñoom lay gën a woyofee ñun suñu réew yi réew yi mel nii suñu réew yi suñu réew yi nga xam ne dañu naan ñu bari dañ koy lëkkaleeg mag màggat mu mu wopp ñu naan daal foo laal rek day métti kon suñu réew yi seen saggan ma ko ma ko waral ndax dañuy gis ne fan yu bare ba dañ ci ñàkk a taxawee dañ cee war a mooy ca sooxe métti sax moo waral nag bi bi wopp yi ñëwee nga xam ne wopp yi moom bàyyiwul kenn dafa matale mboolem fànn yëpp ndax wér-gu-yaram mooy mooy mooy nit su amul rek nit ki du mën def dara moo tax bi ñëwee rek fekk yàlla dogal na suñu réew yi xam ne dañoo dañoo baaxoo saggan ci fànn yi fànn yu bare bari ci saggan xam xam nañ xam nañu wax fànn yëpp daanaka dañ cee sooxe moo waral métti métti waaye mbas mi nii metti ni kon nag tëgg askan woo dañ ko tàmbalee ci suñuy ci kër ñu ko waxee wala sax su suñu jëmm su kenn ko ne rek yittewoo defar boppam ci maanaam kenn ko ne rek yittewoo li ko nga xam ne moom ay yow bu xiifee mu mu fexe lekk am lu mu lekk moom muy liggéey bu woppee wopp ñu bandoon ci ay cëram mu fexe fexe ba tàggoog wopp jooja ndax wopp jooju lu mu tut tut rek bu ko yaree rek bu beneen wopp ñooy fekk ko fa day gën a metti loolu ay tegtal la ci ci wax léegi naka noonu ñuy su suñ ko defee rek kër gu nekk moom ah, maam daal ku nekk itteewoo sa bopp tabale sa bopp tekki saw say njaboot su boobaa kër gi su kër gi jegee rek dëkk bi jàkk dëkk bi yëpp ñu mel noonu su ko defee réew mi yëpp mel noonu ñu toppatoo seen leen a war ci wàllu yar xale yi ak jàngal leen toppatoo li li ñuy teewoo seen diggante ak seen wàllu dundun dundi mu di mu di liggéey toppatoo seen wàllu wér-gi-yaram naka noonu toppatoo seen seen wàllu kaaraange te xam ne ñu gis nañu kaaraange ci rawat na suñu dëkk bii fan yi seetlu nañu fi xew xam ni tumuranke lool ci kaaraange naka naka jekk ñoo ko waxee rek da ko da woon waaye dafay dafay dafa yokk daka noonu askan wi tamit bokk na li koy dëgëral ci teggin yi moo di ñuy diisoo rawat na diisoo boo nag rawat na mm, ñuy diisoo ñi nga xam ne yàlla yàlla may leen may leen ab gis moo di ñuy diisoo uh, njàccaar yi bañ a diisoo gumba yi ndax mel ni jamono jii loolu dafa baaxoo loolu dafa mel daal dañoo gannaaw gannaawal njàccaar yi jiital gumba yi moo waral nag lu bare bare ci jamono ji mu mi am ci jamono yi njàccaar yi mooy ñu yàlla wax ci alxuraan rek ab absaar ak ulul albaab la ko noonu ñi diisoog ñi nga xam dañu am dañu am daal dañu àgg seen liggéey am lu ñuy wax mooy expérience yàgg seen liggéey xam-xam seen liggéey bu baax xam-xam ci lañ lañ liggéey ñooñu te ñu waxtaan ak ñoom ci lépp nag ànd ak dëggu ak sellal loolu lépp nag day day day war gannaaw boo xam ne day war a gannaaw bu ku nekk xamee taxawaay bu taxawaay taxawaay ba mu war a taxawee ci askan wi ndax loolu mooy waral mu mu mu xamee boppam rek mooy waral mu xam taxawaayam ci as ci nam fa nam ci war taxawee te it ñu ànd ak doylu kenn ku nekk. fu ko yàlla féetale mu féete fa te te doyloo ko te xam xam nañ jamono jii bokk na ci lu ko yàq yu bari ñàkk a doyloo ci fànn yëpp nag naka noonu ñu ñu ñu ko ku nekk ñu sa cër ba nga yeeyoo ci ci ci sa man-man te ndax loolu mooy moo di ak maanu waaye su fekk yàlla dogal na ñu jox koo xam ne war war na lañ ko jox du cëram ngir rek ni mu xew ci yi mu muy yaama neex loolu ñàkk maanu la te bokk na ci sabab musiba yi bari ci àdduna bi fu ñu ko xoolee dañ ko dañ ko gis foofu muy ñàkk a jox nit ki la ko yàlla si si cërale naka noonu kenn ku ne xam sa bopp wax naa ko sànq ndax loolu dafa war a yitteel ku nekk ndax nit ne su su ko boppam rek xam ni mu war a nekk dundale moom ci boppam naka naka noonu ñu mën a war a dundee ak nit ñi ci des. naka noonu tamit bokk na ci liy dëgëral aw askan moo di nit ñi di di ni nga ko waxee sànq di daje de seen seeni biir askan yi da daje di waxtaan ci ci xeet ci ci wuuteeg seen xeet nag ak wuuteeg seeni liggéey yi leen yàlla loolu si ñu koy def ngir wattante ay xalaat ak ay gisin ci ci doxali jamono yi su boobaa ñi nga xam ne dañoo niroo niroo ay ay liggéey. ñoom su boobaa sax ñoom leen war a moo di ñu lëkkaloo bañu tàgg takk takkalikoo ngir waxtaan seen liggéey nañ koy saytoo tax loolu bokkoon ci lii jëmal kanam seen seen seen liggéey naka noonu euh, jëf ku jëf jëf yu baax ñu ñaax ko ànd ak moom ndax yenn saa yi moo ko wax dana bu jëf-jëf ju baax képp ku ci jëf rek yow ma ko sosoon da nga ci am yool bu toll ne ka ci ka doon da nga ci am yool bu toll noonu ak ak sa yool ba nga xam ne yaa ko sosoon lii nag dana jafe ci jamono ji li mu wax léegi ngir mu mën a nekk ndax dama seetlu ni suñu jamono ji dafa yàlla dogal la mbas mi fi xaw ni dafa am lu mu fekk ñun ci yoonu murid lu ñu fekkee lu fekk ñun ñu nekk ci ñu koy dund lu métti métti ndax damay faral damay dëgg ñu ne ab kilifa bu mag ci yoon bi dafa waxoon ne yoon bi Sëriñ Tuubaa ñang ñang na ko ba mu ba mu ñagu waaye nag li koy ruur mu ngi juddoo ci yoon bi loolu la man gis naa ko bu yàgg-yàgg mel ni loolu man sama gis-gis kilifa ga koo xool jamono jamono ñu koy wax boobu loolu juddu na boobu fekk na judd na ci boobu bi waaye boobu dafa nekk mu nekk gone mu nekk tout tànk yàlla dogal nag sama sama demee nag ba jëmi jamono ba mu nekk mag nag ni koy wax rek man ba mat mat ba motti ni ki maam daal ni ki ak jaan jaano jaan mag yi rek mag mag ci mag jaan koy waxee am yeew bi mu demee nekk am yeew yàlla dogal nag waaw maanaam ñi yàlla daan ci la ci la nag ci la ko ci la nag ci la yeewu xam daal dafa mel ni kuy nelaw loolu lépp loolu lépp ci sama sama gis-gis li ko waral moo di jamono yi fi nekk yépp di nelaw ak di màgg yàlla yàlla dafa defoon ay eh, eh, njaboot njaboot seen ñu nekkoon fii jamono yooyu njaboot seen tuwaay ci na leer boobu yoo fi nekkoon ba tax na ñooñu daawuñ mën a fer fësal seen seen i seen i seen pexe dawal mën a feeñ ngir yàlla rus ñu rus ñooñu ba ñooñu kenn du mën dafa defal dara seen diggante seen i jamono du lu yàlla gërëm yàlla dogal nag fi ñoo ñoo ñoo ñu làqoo nag ci la loolu tàmbali feeñ mooy li nga xam de de ruur ñag bi ci la tàmbali nag di màgg ndànk-ndànk yàlla dogal nag ci jëmmi jamono yi fi toll fi toll nii moom dafa ne dafa. dafa kiiwaat dafa euh, judd dafa judduwaat ndax ci ñem sosoo ñooñu yàlla dogal na ay mag lañ woon jamono yi yàlla dogal na ñuy làqu yàlla yàlla yaram waaw waaye yàlla dogal na dafa bàyyi seen i seen i kutaay la ñu bàyyi kutaay yooyu nag ñoom fi ne dañoo toll ci seen digg doole doole wax xamaa ne toll fi ne te loolu nag lu mat xam la ndax ni ma ko waxee rek dafa lëkkaloog xeexoo jamono ji ndax man sama gis-gis yëpp dafa mel ni lu yàlla dogal yàlla lu mu wàccee ci doomu aadama ci zaahir rek ci baatin bu baatin am ci baatin lu mu dool ci baatin gannaaw loolu nag kilifa ko wax na ko te ba ko yàqoo yàgg na bon gannaaw bi laa laa seetlu ñu yàq ba sax seetlu ko jamono yi ñu bari soo si waxtaan yi yenn nit ñi dañ dañ ko wax dañ ko wax di wax moo di ñi xam li xew tey def ab taxaw seetlu tey tey yàlla jox leen ab gis-gis xam ne xam ne li nga wax xam nañ ne yoon bi am na fi xam lu lu bees loo xam ne euh, kilifa boo xam ne moom moom mooy mooy li am léegi nii jamono mu mel nag loolu dund ak moom dana moom it dana jafe ni dund ak mbas mi ndax mbas moom moo tane sax ndax xam na am na kii moom am nay pexe yu yàlla dogal nañu ñu mën koo moytu fa fa saayir waaye bee moom dafa dafa nekk dafa nekk baatin koo xam ne ñi ko mën a xam bariwul te yàlla yàlla dogal dafa leen dugal dafa leen dox doole yu rëy yu mag yoo xam ne xam leen day day jafe lool sax ba loolu daal bokk na sama seetlu ci jamono yi man nag dafa dogal yàlla dafa dogal lépp lu may lu lu may wax rek dafa fekk dafa fekk lu lu ma dund la nekkul lu may seetlu ne wax ci kaw nii dafa dafa dafa jëkk ma dund ko yàlla dogal nag bala ma ko wax damay gis firndeem ci zaahir xam ne su ko waxee dinaa andi firnde yi ci ci zaahir si xam baatin baatin mu jiitu waaye nag ma ko mën a wax ndax ñu bari duñ ko mën a waaye man daal lii sama gis-gis jamono la ci gis-gis naa ko jamono yi. waaw lii yëpp nag jublu ci jublu ci lu rek laayante biir ndax nit ki gisee lu luy luy lore bu buy ñëw dana ko teel a wax ay ay bokki jullitam ñu mën koo maytu nañ ko mën a maytoo ak yéen ñëpp ñu ko mën a maytoo rek kon yal na yàlla musal te yàlla sàmm ñu sàmm ñu suñu kilifa may may gudd fan wéeg yaram musal ñu ci mbas mi ñu fekkee déwén kon nag xanaa ñu yemale waxtaan wi rek ñu mel jublu ci ñaari sunna si ndax mi bëgg bëgg naaj kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وسرما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل هامل جميعنا بلطفك الجميل وكن لنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وسلام وتخرنا بفعل ما مبتا والتكفنا في لما أبختا ولا تكن مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سمان